su demee nag bàyyi nit ñoo soo jaaree si mbedd bi doo mun a jàll te ak feebar boo xam ne bii dafa euh, lambe réew mi yaakaar naa ne loolu suñ ko defee nii maire bi jël si euh, maire Isaka Diop si si ay motukaay yoo xam ne yu sëkk la yoo xam ne mu ngi ko war a def fi loolu moom normalement ñun ñëpp même population bi ñu yëpp dañ si war a kontaan. parce que nag balaa ngay wax lekk da ngay wér. wala ngay dem di wuti dépasse il faut nga wér kon nak lu suy defee lii population bi sama xalaat bop population bi lay maire di dimbali lay di autorité yi la dimbali. ñu nekk ci territoire bi lañu yëkëti té maire bi mu ngi def ay commission yo xamni ne ñëpp soob yalla dañu diggaat ci bir marché bi pour liggéey wante nak loolu yëpp il faut ñu def ay espace yo xamni état bi lu mu santaane pour nit yi mun a sorante te maire commencé na def ay actes yoo xam ni ak yu rafet la parce que Wakhinane Nimza soo démonté fa bépp jaaykat bu fa nekk maire joxe na fa ay max ak yeneen lool la ñu bëgg suñu paree fii encore def ko ci au niveau des marchés Sandaga Pikine Sandaga euh, marché boo xam ne bii marché international la ñëpp ñoo fiy daje kon nag sa dépasse ci période dafa am ay période yoo xam ne yi marché bi lay gën bari bëri nit bi bëri ay bagage am période yoo xam ne encore du yàlla xam na marché bi nag noo bi moo bindee noonu ci période bii nag tey bu ñu nekk fi tasat ak feebar su loon feebar bi su ngeen ñëwee tey du ngeen dugg parce que période mango euh, mango la période madd la wante nag nii la ko yàlla dogalee man daal maa ngi sant autorités yi xam naa ne daal lii population si seen bopp ak ñoo xam ne ñi dañu dëkk fii si côté bi quartier bi ñoom tamit si seen bopp dañ si kontaan